marhaban l' accident bu jéggi day bi am ci région de Louga bokk na ci la gën a fës si xëtu yéenekaay yi Le Soleil nañu Sénégal daal nay tabbiwaat ci dëj ginnaaw ab l' accident mi dox ci diggante ab kaar ak benn camion ci diggante Louga ak Saint-Louis ñaar fukk ak ñaar ci ay doomi aadama ñoo ci jot a ñàkk seen bakkan ñaar fukk ak ñetti daal di ci jëlee ay gaañu gaañu juróom ñaar ci ñoom seen gaañu gaañu yi daal di tar lool ñoom ñooñee sax yéenekaay bi mu ngi xamle ni ab hélicoptère la président Macky Sall yebal ci bërëb ya ngir ñu mën leen évacuer ci Ndakaaru bii l' accident nag mu ngi dox ci diggante ab kaar Njaga Njaay ak benn camion kaar bi nga xamante ne ab horaire la lu tolloo ko ñeent fukk ak ñaar ci ay doomi aadama ñoo ne woon ci biiram bàyyi ko woon ci ab dëkk bu ñuy wax Njok Fall ci commune bu Sakal l' bi nag daanaka ci altine ji la amee ci ay booru cinq heures du matin ñi ci loru la yëpp daanaka ñoo bokk benn dëkk bu ñu sukkandikoo ci meeru Ngëñ Saar yéeni kaay bés bi le jour mel ni kuy dëggal xibaar bi ne ñu ñi nga xamante ne ñoo lorule ci biir l' tey dëkk ci ndëngul ci arrondissement bu sakkal ci ab xew la ñu bàyyee ko woon ci dëkk bu ñu wax Càmbenn chauffeuru minicar gi moo doon moytu benn mbaam bi doon traverse ci noonu la mbëkkante camion ba ginnaaw six kilo geneen jéeye daal nay amaat ci Sakal yéeni kaay Sud Quotidien moo koy xamle suñu naatango yi nañu premier ministre bii di Amadou Ba ak jëwriñ bu ñu dënk kaaraange bii réew mi Antoine Félix Diome demoon nañu ci bërëbul accident ba ngir constater dégâts yi sénégalais yi noppeeguñu jooy accident bi xewoon fale ci Kaffrine geneen jëye daal di amaat ci yoon wi bu ñu sukkandikoo ci Walfadjri quotidien mi jàpp ne mbir mi war nañ cee mën a indi bi xeltu bu xóot lool Vox Populi ne ginnaaw ñeent fukk ak benn ci ay doomi aadama yu ñàkk seen bakken ci six kilo yeneen ñaari fukk ak ñaari doomi aadama daal di nañuy faatuwaat libération mel ni kuy tënk mbir mi nañu ci diiru benn semaine kepp juróom benn fukk ak juróomi doomi aadama ñoo jot a ñàkk seen bakken ci ay l'accident ndax Mansour Faye di jóoriñ bu ñu dénk wàllum demak dikk gi dina woy di desandi ci biir gouvernement bi ginnaaw bii li accident bu bees mi am fale ci sàkkal te ñaar fukk ak ñaar ci ay doomi aadama daal di ci ñàkk seen bakken bés bii la jour mooy samp laaj bu ni mel suñu naataango yi nañu moom Mansour Faye coow yàgg na koo topp yéenekaay bi daal di koy tàmbali ci ni mu doon gérer ceeb bu ñu jëndoon ci mbasum covid 19 gi doon ko jàppale askan wi jaare ko ci rapport bu mujj bi tukkee ci waa cour des comptes mi sàkku ubbi ab information judiciaire ci daajam naam sax moom Mansour fay nekkul ab responsable direct jëmale ko ci les accidents yi xew ci six kilo ak ci sakkal waaye nag du teene moom jooriñ bu ñu dënk wàllum dem ak dikk gi ab kaala bi nga xamante ne kenn mënut a gëmm ci ay mbiram ndaxte daal nañ koy méngale ak Abdoulaye Diouf Sarr mi nga xamante ne dañ ko fi wàcce woon ci weeru mai ci atum 2022 ginnaaw bu ab incendie amee ci hôpital bu Tiwaawoon ba fukk ak benn ci ay liir daal di si ñàkk seen i bakkan ndar keepekook yéen i kaay source am yi xëy ay xibaar yu doy waar jëmale ko ci l'accident yi ak visite technique yi suñu naataango yi nañu centre mi ne ci Colobane ba nga xamante ne fa la taxi yi di jaar amut benn machine li ci gën a yeme ba tey bu ñu sukkandikoo ci yéen bi moo di ne bu weesoo ci an amut genn région wu Sénégal bi nga xamante ne am nay juntuwaay bu ñu mën a defee visite technique bu jaar yoon daanaka sax vérification yi jëmale ko ci visite technique yi loxo lañu koy defee wala taxaw ubbi gët di xoola Thiès nag moo jël raw gaddu ga bu ñu sukkandikoo ci source a ndaxte suñu naatango yi daar nañuy xamle ni chauffeur yi duñu sax yóbbu seen ay woto ci centre ba seen ay kayit képp la ñuy yónnee ngir mën a jot seeni visite technique jàngeen jëf